c CPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Ecobank, Malaysia UMO, Soumari.com, Savon de Marseille Alfi, ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ci la ngeen jëf kilifa diine yi ñuy sàllaw la ak di leen ñàkk teggin ci réseaux sociaux yi taxaw nañu temm ci mu dakk l'observateur moo ko bind ubbil yéenekaay bi kilifa diine ci réew mi ñu bari ci ñoom dañoo mel na ñu yëgoo ci kaw gi ki ci njëkk yéenekaay bi nee nañu moo di Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des mourides keroog samedi ci cérémonie officielle bu màggalu Kazu Rajab gi fa la xam le ne politiciens yi ak ni nga xamante ne ji ñoom la ñuy doxalee nañu xam ne kilifa diine yi ñoo leen ëppale ci réew mi li ñuy xëccoo di yëf yi àdduna ba tax askan wi di féewaloo loolee nañu xam ne moomuñu réew mi mu ne léegi nit ñi dem nañu ba dañuy ragal li ñuy ragal la ñu xamul lan la ragal a wax ngir bañ ku la ca wax dara te loo wax ka la cay wax dara tegu ko fenn lu dul ci intérêt boppam ni ko Cheikh Bass Abdou Khadre ñaawlo l'observateur ne nañu noonee la ko sëriñ Abib Si moom sëriñ Abdoul Aziz Si Dabax ñaawlo ci cérémonie officielle bu gàmmuk Jagsaaw gi nee na mbir yi jéggi na dayo ñoo ngi seetaan bay bayet loo xam ne bu màggee du jur jàmm dem nañu léegi ba benn kilifa diine ñametuta wax ci mbooloo ndax bañ ko ko ñàkk teggin te ñi koy def bàyyi lu ñu ko kenn ca Medina Baye dégg nañu Cheikh Khouraychi Niass moom El Hadji Ibrahima Niass muy ñaawlu song gi nit ñi jugtee léegi jëmee ko ci kilifa diine yi te li ko jiitu yéenekaay bi nee nañu xalif général bu Medina Baye di Cheikh Mahi Niass moo njëkk a yëkkati kàddoom di ñaawlu ak a naqarlu ni ñuy saaga ak a ñàkkee teggini kilifa diine yi bés bi le jour nañu dëkk bi di Touba am na lu ko mitti lool ca la fa xewoon keroog ba fa Ousmane Sonko jaare Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ay kàddoom ci yéenekaay bi muy xamle ne Touba la bopp a wormaal di ko yàq te it loolee jaral nañu bakkan sour soit na lu ko waaye ñoo ngi dànkaafu képp koo fa defati Les Échos bind ne Touba tegaat nañu politiciens yi ci seen place laas yéene kaay ko boole ci kit di yedd ña fa doon def fi manifester ba salfaañi dëkk ba dëkk beneen mu di Géejawaay L'Observateur ne nañu waa PUR di parti pour l'unité et rassemblement fa la gonte woon démb ab meeting ngir doon màggal ñaar fukki ak juróom yi nga xam ne parti bi am na ko Vox Populi ca ndaje moom fa la Ousmane Sonko leerale li tax keroog nañu yemu ca ndax nee leader yi ci opposition bi bu ci Macky laalee kenn askan wi ca pale ba lañ koy fekk génnee ko ñu génn fa dem ci libération mi ñuy wax ne moom Ousmane Sonko am na keneen ci waa kër Macky yi yëral xët mu njëkk Walf Quotidien yéen kay bi nee nañu ginnaaw lu ëpp ñetti millions ñuy dajale woon ci levée de fonds soxal nemmeeku tuuru Ousmane Sonko yi leader yu parti Pastef fële ci diwaanu Podor daje nañu keroog ci dëkk bii di demet samp nañu fa bureau jeunesse patriotique lañ ci jublu moo di dugg ca Fuuta dajale askan wi muy mag di ndaw di góor di jigéen wax ak ñoom ngir ñu waajal élection présidentielle yi 2024 yi Walf Quotidien bind ne Pastef mi ngi lawal ay banqaasam ca Île à Morphil ñaagis ga ca Casamance libération ne nañu foofee toj na mokk na rumbax princesse de ñaagis Victorine Ndeye maire bu ñaagis doon it ministre Yaakaar yi ca diiwaan bu rëy ca terrain samp fa Macky Sall def ko candidat ci wote présidentielle yi 2024 yi yu jëm kii di Benoît Sambou bokk ci kilifa ya fa teewoon bi nee nañu moom ma nga woon keroog dimanche ci diwaanu Kaolack ab conférence publique la fa woote woon ngir doon fa fàttali askan wi ak diwaan li président Macky liggéey ci Sénégal moom directeur emploi yéenekaay bi nee nañu jox na fay jeunesse bi message bu fort a fort jëm ci ñu wormal kilifa diine yi ci réew mi tegal na ndaw yi pexe programme xëy ndaw ñi ngir askan wi rawatina mi ci week-end bi xale yi xale yi gën a ci njàng mi atum 2022 bi nee nañu moom la IEF ak conseil départemental bu Nioro tànnoon ci ñoom lu mat téeméer ak juróom benn doon leen sargal ak a neexal ngir gën a dooleel wàllu njàngale mi pàcc mi ak yëngu-yëngu yi ci am direct news mi ngi ñuy def ne lu toll ci ñeenti weer ci weer wi travailleurs yi ci collectivité locale yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu santé bi nekk ci grève te boobee ba léegi dégguñu société civile bi ñu wax ji naka noonu way politique yi pat patiral googee ci am yéenekaay bi nee nañu moo jaaxal lu bari beneenub laaj bu sampe ci beneenub yéenekaay moo di ci la Tribune lu aju ci rapport bi fi Cour des comptes siiwaloon mu jëm ci niñ doon doxalee xaalis bu fond force covid 19 bi am ñu ci joxar bi baaramu tuuma ñooñee lu journal bi laaj ana fan lañu toll ak ñoom CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Ecobank, Malaysia UMO, com Savon de Marseille Alfi ak marque bi di Total Tools ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi